ñoo ngi toog ak toujours ak euh, euh, lu mu lëndëm lëndëm. <laughs> dañuy xuus jaar. da ngeen di fu dañuy for béy. da ngeen di for billaahi wallaahi. dégg naa booy yi démb di woy mhm. golo wàccal xaw ma. <laughs> golo wàcc sa morom yéeg. golo wàcc sa morom yéeg. waaw adduna potu ndaal la. pour ah. naan jox sa morom naan. kon moo loolu daal golo bi day wàcc. xam nga xam nga tere booy ñaan. waaw benn bi. waaw muy suma xarit la ko tuddee woon muy Balla Gaye. benn bi moo loolu la. ñaari tere yooyu. loolu lay loolu lay nag. yow daal da nga gëm ne le premier. dem ko gëm-gëm boobu la am man gëm-gëm boobu la am man sama xool bu weex tàll laa am te Pikine. Ah. man Pikine dañ maa nangul Iba Kane. dëgg la mais mais mais nan ngeen fente wooy boobu Modou Lo wàccal Boy Niang yéeg nan ngeen ko nan ngeen ko. créé non moom moo ko créé moom champion bi ci boppam. moom ah. moo ko créé waaw. Ah. waaw créé ko Modou Lo wàccal. waaw sa golo wàcc sa morom yéeg. ngeen njëkkoon créé. waaw lu mu lëndëm. dañu waaw bukki for bëy. waaw bukki for bëy. waaw waaw. mais mais mais Pape Sarr yow yow foo nekkoon si Alassane Djigo ba saa Touba dugg Pikine nekk si stade bi. di def yu muy def téyel yow gisoo ko mais Pape nelaw nga de gis nga mag mag da wax day wax dëgg ah! mag mag laa la wax kilifa surtout kilifa waaw da ngay wax dëgg waaw yaa ngi may dégg gis nga bëgguma tudd turam nag waaw parce que bëgguma seetaan naa benn vidéo mm-hmm. benn booy di dal si kawam di ko wax yooyu duma ci fekk yaa ngi may dégg gis nga yooyu du ma ci fekk mm-hmm. uh-huh. xanaa dafa soloon tenue policier ah mais su ko neexee non xanaa dama soxla toni toni semi ñëw dugg fii gis nga nit ñi. Ah. nit ñi dafa mel ni nit ñi ay xal waxu xale yooyu mooy lan soxnaam mu ngi dëkk osan bu kii bi est Alassane Djigo bi. waaw osan bi. waaw koñu osan bi la soxnaam dëkk. yaa ngi waaw soxna Saatou Ba xam nga foofu la dëkk. waaw ànd nañ fa. daje nañu foofu ci benn mbàkke mbàkke ma ñëw mu ne ma soxnaam fii la. fii la nekk. li ma metti sax mooy journaliste boobu naan ko xanaa Pape saar nga doon seeti. man waa yow man damaa sekk ak moom yooyu sekkuma ak moom yooyu. kon daal kon yow gëm nga ne dugg Alassane Djigo. waaw ban dugg dafa jege sax dafa jege tribunal bii. mais mun na sol masque. maay solul dara solul dara loolu amul loolu du dëgg man Pape Sarr maa ne li ngay wax du dëgg. mais mun na sol beneen yë mun na sol yërëm yërëm amul barke yaa la de. gis nga loolu amul. est-ce que bokkul open press bi bu tegoon tànkam buntu Alassane Djigo ñu yóbbu bakkanam mais nee na ragalul dara mais mën na safalu jinne non dama ne la barki Seydina Mouhamed ku bokk foofu boo tegoon comme tey ñun man tey parcelle garage parcelle mu ngi nii waaw extension tali bu mag ay doomu parcelle rek ñoo fiy liggéeyee di jël oto di dem di ñibbi waaw milliard boo ñu ko mayoon du ñu dem open press Modou amul ku ñu ëpp fit mhm. dégg nga lu ñu bëgg wax ñun dañ koy wax mais tey boo ñu fayoon milliard mhm. du ñu dem buntu kër Modou Lo di seetaane ay open press saa Touba li muy wax amul buntu syndicat sax eggu fa. mais mun na soppaleku jël non dama ne la dafa mun a soppaleku dara. ah si ah, dina la dafa am dafa dafa na bàyyi ah, lii làmb la def quoi mel ni sëñ Massi la quoi. Hmm. ak sëñ mu sëñ Babacar quoi na bàyyi yooyu noonu yooyu guuxul suñu xel bii. dégg nga yooyu suñu xel bii. mais mais yàggul jóge Pikine am fi ndam de. non mais ma ne. non déglu ma daf fi am soxna. Ken munu ko téré Pikine deug la fi am soxnaam ah. deug nga xaw ma am fi njabot wala amu fi njabot mais ñun ñu ko téré Pikine mais open press boo ñaa lu xéto lu bokk parcel, tegu fi tankam barki yalla mais instant boobu yaa ngi woon ci mën non man newuma woon ci biir man maa ngi bi man maa ngi ah. l'an deux waaw gis nga l'an mu ngi sol blouson bu man ak l'an ñoo ànd ak waa écurie Tay Shinger ñun ñoo ànd duggandoo ci biir stade bi. dëgg la ak euh, kii euh, euh, géwél bu silwise. waaw. dégg nga. géwél bu bu booy ñaa boobu bu silwise ba ñu akolaat man ak moom. mais mais mais mais Sa Touba dugg na Pikine génnee fi ndam la 5 novembre de. duggalu fi ndam Modou Lo moo fi génnee ndam Sa Touba indiwu fi ndam. mais Sa Touba waaye yow c'est que problème mooy du moom mais yow barki démb la indi la ñëw fëgg dënnam. indi Petit Lo ne doomam la léppam la li muy def ci Petit du ko def ci Modou la dégg nga yaa ngi may gis nga soq bu ndaw ñëw corrigé ko sànni ko fële ah? hmm. boobu ana yàlla dañu bàyyi seen bopp yooyu ñuy jël di ko def ci place yu yàlla. Hmm. man du ma wax si kenn ku dul sëñ Massi la dafa assuré de man sànniwu ma ko xeer de. waaw damay sànni vidéo bi nañ ko dagg envoyé ko ko nañ ko dagg man supprimer naa numéro am yàgg na. ci Super Ménage numéro bi yàgg na depuis muy ñëw naan ay affaire moo ngemb Eumeu Sène fan la ngembee Eumeu Sène man maa ko indi maa ko indi kër Eumeu Sène maa maa wañaar loxo Eumeu Sène boole koog saa Touba ma ñëw Eumeu Sène mënuma dafa Eumeu Sène du siggi xool ma ma kan barke Seydou dëkk Iba Kane Eumeu Sène du siggi xool ma depuis bi mu nekkee kër maam Sofi Sène ñu jàkkaarloo kër hmm. boobu nekkul mbër boobu suudar la tôlier hmm. marché Savanel boobu Eumeu Sène tôlier la mu ngi bokk ak atelier moom njaga Eumeu Sène lamb boolewuñu kon Sa Touba mos na liggéeyal mosul woon liggéey xamalal la ah. daa ñëw ah. man maa mu ñëw comprendre nga si mu ñëw ne day jàpp si combat bi hmm. ma ne ko ñëwal nga jàppale ñu hmm. jeex na fii Eumeu seen di ngeen man Pape Sarr li ma xam Eumeu Sène ba tey mosuma xam ne néeg bii lay sottee koo gàllaaj waxuma la koo xamante ne yaa ngi beneen camp maa juum foofu indi ko fa combat ma kan la woon. bombardier combat ma bu mujjee bii te Eumeu Sène ma jox drapeau bi ma koy indi ndaayaan fii. Hmm. yaa ngi mooy dëgg ka dama ne am moomul ndam du moom mooy joxe ndam yàlla mooy joxe ndam. dëgg bu wër. yonent bi tegul tànkam syndicat yow Alassane Djigo ngay wax buntu syndicat tegu fa tànkam ku fa teg sa tànk nga dëkk foofu soo ñëwee barke Seydina Mouhamed doo ñibbee bakkan naa Mouhamed laa lay giiñal bu seen bët daje woon yéen ñaar foofu. barki Seydina naa wallaahi wa taalaa ñu suuli ma wala ñu suuli ko barki yàlla ñuy bëreeg ñoom muy teg tànkam Alassane Djigo som dañ may suuli wala ñu suuli ko barki Seydina Mohamed ak xaritoo beeg xamante beeg gaynoo yëpp fee laa koy teg. ñu jàll ci sox. Mm-hmm. soq keroog daanu contre kii. Mm-hmm. da ngeen dugal recours am nga am nga si yaakaar ba léegi. non man aw ma ci information dafa dugal recours wala. dugal recours Matar Ndiaye man wax na ma ko. dafa dugal recours. waaw uh-huh. ba koy wax kon yow da nga jàpp ne soq moo daan non non ba loolu laa gis. dama bëgg télé bi génn ñu beneen phase bi. Uh-huh. benn phase bi rek la ñu mais beneen bi wanuñu ko wanuñu ko. wanuñu ko. noo gisee sox euh, sox macha allah préparé na. waaw dindi na graisse bi neewoon ci moom lépp. Mhm. xam nga. waaw athlète na. Mhm. tey xëy na nii la waroon demee. ñu koy wax bu mu découragé. bu mu tukki bu mu dem fenn. Mhm. kenn ëppalewu ko Pikine. def na fi ay jaloore. keroog daf fee tegle daan Buur Siin. daan mobile 2. daan fi ay ndaanaan la fi soq daan. yaa ngi may dégg est-ce nag ndam rek la ñu xam. loolu daf fi war a dañ. daf fee war a dañ. defet ci la bokk defet ci la bokk match nul ci la bokk. defet ci la bokk match nul ànd naa ak man mbër mu tegle quatre defet man mu ànd tegle quatre defet bi quatre defet yi jeexee. dix victoire la ci teg. man Pape Sarr. mbër moomu kan la. dam siy def kot. Ibakan Ibakan man Tyson dañu nekk ndoo Seras mu nekk Saalu Der moom man daw Tyson. man man daw Tyson. damaa nekk Saalu nag. Mhm. di porté di topp numéro 5 bu Amadou Dieng. Mhm. boobu bay laa tegul tànkam Seras Aliou tegul tànkam Seras ñuy nekk ay xale yu ndaw. Mamadou Mouhamed Ndaw tey seen laa wax de. boobu boobu après la jógee boobu dem pare jëli ji ngay luum. Mhm. ñoo dem jëli ji ngay kon man du ma tay ci làmb. ama seen côté boobu la dëkk. Ama Baldé fa la dëkk. ñoom ñëpp la dëkk. Tyson saalu der la nekkoon. ma koy ñëw di ko fekk géeju bulma. ñu fay nekk ñuy préparer Balla Gaye numéro un di préparer Lang Sané ñu fa daan nekk yaa ngi may dégg sa ah. Paate Balde di préparer Ray Sugar si même année boobu Paate Balde di préparer Ray Sugar magu bàyyi ma njoon dégg nga ma leen di seetaan man loolu vice boobu moo ma dugg ba nga xamante ne lu bon lu ñëw billaay wallaay tallaay dama koy dama koy dëkku dama koy dëkku parce que dama cee dem dama cee sonn lii nii lii billaay wallaay tallaay dama cee sonn. dëgg la sëy bi mone bi laa amul mone bi la laa jotul. léegi mone bi. Hmm. ah ay wax ay wax yoo xamante ne. waaw doo am foo koy teg ki nga wax day sol tuba yi wax soo koy wax da am foo koy teg man Pikinois laa yàlla dimbali na ma bu ma taalee sama scooter bi hmm. fu ma munti wër ci adduna bi hmm. billaay wallaay tallaay ñu ne ma mu ngi nee di dem Pape Sarr a ngi nee yàlla defal na ma loolu xam moo tax ma am loolu mhm. xam nañ ma mel Pikine xam ko mhm. li ma li ma mel mhm. du géejawaay moo ko fa am du parcelle amu ko fa li ma mel nii képp ku si ku koy def ci man mi nga koo imité le 5 novembre Ama daan Modou Lo daan Ama feebaroon nga de non non man heure non heure bi heure bi fii laa toog am lu ma metti trop mais après bi ma yeewoo affaire bi jeex na waaw yéen yëgoon nga ne Ama naa ko. wala lu tax dem. non non bàyyiwuñ ko parce que moom moo bëggoon xam nga libéré wu ci lii man yëgoon naa ko. yow yëgoon nga ne waaw yëgoon soo soo ñu su ñëwee du la ko won. waaw. Ama Balde dama ànd ak Paa Idi. sama benn xarit bu nga xamante ne tey. Hmm. bi Ama Balde wàccee pari hmm. sama xarit boobu mu ngi nekk cité Elisabeth Diouf daa bëgg Paate Balde. maa ko présenté Paate Balde. Ama bi mu demee Paris ci moom la dal. Hmm. si Paa Idi la nekk. muy koo xamante ne mention spéciale paa di yàlla combat bi combat ama bi moo ko jëlee Paris indi ko fii ñëw comprendre gis que mhm. ba ma ànd ak Paate Balde ba kii euh, euh, pa idi mu ne ma Pape Sarr ama bii non ama bii warul parce que xam na xam na bi mu nekk ak moom Paris état bi ama yoroon mhm. ak bi mu ñëwaatee gis ko mhm. mais day nekk xale boo xam ne xale boo am jom la loolu yëpp weesu na le premier bu soobee yàlla li ñu metti woon yëpp booy ñaar dinañu ko fayu. Modou Lo day wàcc. dama ne la xaw ma day wàcc xaw ma day yéeg gis naa saa Touba di see film di takk ay golo ci ay ay ay seen ci kaw. jël ay golo di ko fa takk pour lan la yooyu pour la la na ay see film bi waaye. damay làmb de damay làmb de man amul lii de. looy tàggatoo mon frère. maa ngi maa ngi li may tàggatoo mooy maa ngi gërëm ñëpp. di gërëm la Ndayane. di gërëm wa Ndayane. di di wax sama rakk ji bi nekk tey muy Habib. dibiteri yi. Mhm. waaw Pikine yëpp xam nañ ko. Mhm. Habib man maa ngi si ginnaawam. Mhm. man client bu ma mus a am. fii Pikine. dinaa ko fi indi. Habib ñoo jàppale nekk ci ginnaawam. ñu liggéey jàppale waa Ndaayaan. jàppale Mara bi nga xamante ne moom zéro faute. dibiteri bi daal suma dibiteri la. képp ku client Pape Sarr nekkoon. muy waa cité Elisabeth Diouf. muy waa Jëppal. muy waa dibiteri Fallaaj yi fa daan ñëw. waaw dibiteri Njaga Mbay mm-hmm. ak képp koo xamante ne tey yaa ngi bëgg tey ndawal. jarul ngay déplacé wu. Mm-hmm. wooteel ci numéro boobu mu ngi affiché ci kii bi. Mm-hmm. soo ñëwee scooter bi indi la ko ba sa kër. waaw maa ngi gërëm ñëpp. di gërëm suma famille suma benn yaay mu ngi ba Suisse. ñu koy wax Awa di sama doomu maam lobaat di gërëm bu baax bay laa lobaat mu ngi ba Paris. di gërëm mama lobaat mu ngi ba Memphis. di ñaanal suma yaay. waaw di la gërëm bu baax a baax a baax a baax. rendez-vous. rendez-vous le premier. maa ngi koy ma waaw le deux ñu ñëw feete ko. feete ko. fii waaw fii ci Ndaya non Pikine yëpp lañ koy feete maa ngi woo waaw Ridis. waa Tali bu bees. Uh-huh. waa Icotaf. Uh-huh. waa Ginnaaw Raay. waa Mbaaw. Mm-hmm. seize communes Pikine yëpp. maa ngi leen di woo ñu génn soutenir seen doom. seen rak. Boy ñan suñu borom defal ko ndam lu sedd guy. allahuma salli ala sayyidina muhammad jërëjëf Pape Sarr tey moom la ñu seet woon fii si Landaaya.